asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit ñi sax foo si 313 digital ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen dal leen ak jàmm ci lu gën a fës dañuy daal di ñëw ci kàddu ya nga xam ne rek moom Ousmane Sonko yëkkati na ko ku ne xam ne ne jamono ji nag moom Ousmane Sonko ma nga foofu noonu ca Cap Manuel moom naka daal dinay démentir ca la nga xam ne rek génn na ni kii tay que ne kat candidat yi nga xam ne dañu daal di recalé ñoom nag ñoo daal di formé. am benn euh, collectif euh, ñoom nag ñoo daal di euh, dem ca bind ab bataaxal daal di koy jébbal président Macky Sall di ko sàkku rek à ce que rek ñu daal di tijjiwaat mbirum parrainage yi ngir rek ñu mën a xam wala tamit ngir ñu mën a xoolaat bu baax a baax càmbaraat étape parrainage maanaam vérification loolu la mbir nag su Ousmane Sonko daal di tontu moom nag la mu daal xam xamle rek mooy que gis nañ ab document boo xam ne ma ngay circuler di wane que ne kat ñu recalé. Euh, ci euh, étape parrainage ñoom nag ñoo daal di solliciter euh, président Macky Sall loolu nag ci wàllum processus électoral bi nga xam ne rek jamono ci moo nekk en cours et que Ousmane gis na ne que ne kat turam dañ koo daal di tudd ca candidat yi nga xam ne rek nee nañ ay signataire lañ ca boobile mbir et que Ousmane Sonko moom ma ngay daal di démentir ma ngay daal di weddi. loolu lekk ne moom euh, bokku ci ek li ni mel aussi kenn informé wu ko maanaam kenn tàggu ko kenn waxu ko ci kenn yëgulu ko ci euh, dara loolu daal di xam xamle moom nag Ousmane Sonko ba léegi rek euh, ma ngay daal di fàttali que ne étape bi nga xam ne ci la ñuy daal di toll jamono ji rek moom conseil constitutionnel dong rek moom moo am prérogative yooyu li ek prison Macky amul et que président Macky amul benn prérogative boo xam ne rek am na ko ci wàllum euh, processus électoral kon bu ñuy wax euh, la conseil constitutionnel euh, la ñu war a waxal ndax moom rek moom moo nekk maître bi jamono ji yile kàddu la Ousmane Sonko daal di fësal waaye tamit ma ngay daal di woowaat ña nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak moom ak fu ñu munti nekk rek ngir ñu daal di téyewaat bu baax a baax et moom. Euh, turam mësuta bokk ci euh, ñi nga xam ñoom ñooy demander euh, président Macky Sall rek ngir mu daal di leen di. mayaatoo beneen sens et moom mi nga xam le que ne moom laalewu ci euh, benn yoon te tamit bañ ko defee aussi euh, defuñu ko ci loo xam ne rek dañ ko dañ ko cee daal di euh, tàggu maanaam Ousmane Sonko moom a ngay démentir la nga xam ne wax nañ ko ne Ousmane Sonko et ñoom ñoo daal di signé boobu li bataaxal ngir ñaan prison Macky Sall daal di leen di may à ce que rek ñu ubbiwaat li nga xam ne rek moom mooy vérification parrainage li mel nag la Ousmane Sonko doon tontu ba tax rek publier ci euh, page Facebook comme di ko xamal l'opinion nationale et internationale que ne laalewul euh, ca boobu li mbir et que demandé wul dara ki nga xam ne rek moom mooy président Macky Sall su amee lenn loo xam ne dañ koy wax. Euh, conseil constitutionnel lañ ko war a wax mais pas président Macky Sall mi nga xam ni amul beneen benn prérogative euh, ci euh, processus électoral yi les cadres la a Sonko daal di yëkkati ndiki sànq fii la ñu daal di wàcce wi suñu ay kaddu. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndiki ci kanam tuuti ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte chaque fois di abonné sur 313 digital